parce que dëkk bi nit ñi yokk nañu tali yi gën a xat suñu mbokk yi nga xamee ni ñoo amee yi daw moo xam jakarta la wala wutir wala oto nañ leen teel ñu réglementé leen beneen bi ci des si tamit mooy cetu dëkk bi parce que dañu wax ne an nazafatu minal imaan cet moo moo jiitu ci wàllu gëm yàlla kon li nga xam ne moom moo war mooy li nga xam ne sëriñ bi wax na ko di sëriñ baaba Babacar Sy Abdoul Aziz Tiwaawoon yëpp ñu fekk ko ci mooy le 27 na ñëpp génn bu ku ne génnee bale këram bale bundu këram rek dëkk bi dina set loolu ñu ngi koy ñaan ñëpp ñu bàyyi ci xel parce que kuy recevoir gan yi yonent bi Tiwaawan kenn du leen jàngal nag du ñuy teeroo gan parce que yàgg nañu ko def euh, yàgg nañu gàmmoo yàgg nañoo xamit naka la ñuy teeroo ay gan loolu kenn du leen ko jàngal. ak wàccaay gàmmu gi boo doon ñaan tey lan ngay ñaan ci wàllu éclairage bi pour ñu gën a yi leeral dëkk bi bu gën leer dina ci am solo. waaw loolu aas daanaka sax doo ko ñaan parce que bi ñuy xale ba léegi gis nañ ni fu gàmmu jote rek dëkk bi dina leer naññ mais après gàmmu bu nu dawalee 15 jours 20 jours rek euh, leeraay bi commencé di wàññeeku. ñuy fay par benn bu mujj lépp day lëndëm li ñuy ñaan mooy continuité maanaam bu ñu taalee lamp yi làmp yi na continue di tàkk parce que Tivaouane yaatu na te yi tamit li fiy ñëw ci ay nit ñoo xam ne bokkul ak ñu juddoo Tivaouane yaraw fi lu dul liggéey leen fi indi dafa bari te jikko yi bokkul kon ñu ngi ñaan municipalité bi ñu gën a veiller ci éclairage public dëkk bi ci gàmmu gi buy ñëw dëkk bi dina leer dina set mais seetlu na ni bu jeexee continuité boobu du faral di am kon ñu ngi koy ñaan surtout premier magistrat de la ville di Mamadou Sy Mbengue xam nañu ay taxawaayam naam mais loolu nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax bi ci des it tamit mooy ñu ngi jëm euh, incha allah ci burdu yi burdu yi tamit li ñu ciy ñaan rek mooy comportement bu rafet nañu nuru Seydil xaaj Malick parce que Seydil Hadj Malick ñun dundandoo moom ci jamono foton bi ku ko xool rek di nga xam ni kii mag mu bàyyoon xel boromam dinaa la ci nett li dara dafa am benn mag boo xam ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum moom moo ko nettali nee na dafa daje moom ca pont Ndarba ci ni mu civilisé ci tabarkalla colom ak ci parasolom boobu sol dàll yoo xam ne la góor gi topp ko. di ko topp di ko topp bu mu dugg këram mu ñëw nuyu ko nee na xamul lu mu koy wax mu tàllal ko loxo ni ko jox ma tariqa bi mais bi mu gisaat rek Serigne Babacar la ko ni yeesal ma sa bàyyi ma ko joxoon mais bu ma koy jël du woon gëm tariqa bi mais sañse ba rek a taxaw kon nga xam ni cet ak sol dafa bokk ci principe bu tariqa tiijaan te Seydil xaaj Malick ñi mu yor ñépp ñuy ay njabootam. jàppewul leen ni ay taalibeem lañu waaye ay nawle la leen def daan na wax ni man Malick li ma bëgg yàlla may ma ko yàlla bu kenn xamee sama doom ak sama ak sama taalibe kon loolu yaakaar naa yàlla defal nañ ko te Seydina Omar nee na kilifa. bu euh, ñuy wax nan la yare njabootam da yar njaboot ko boo boo gisee njaboot di ko jaawalee kilifa bi te la xaaj maalik euh, réussir na loolu kon nag ñu ngi ñaan ci barke wa man daa abisé alal yaqini yu jabbi rama minal matini yalla nañu yalla defal gàmmo jàmm ak salam ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi wax ñepp soyez le bienvenu marhaban bikum jeuf euh, Asia euh, ma ngi kontaan trop ci question bi nga mo poser parce que xam nga pap Moussa Sama rek dafay wax nan xandor bu demé ci tukki wul dafa ñibbi hadji mbeng Diop surtout lat yax rek buy lokki sidaj daañ jël mamam soppi aw turum tuddi ko mu Muhammadu mu ñëw tey bañ koy woowee bàyyi ndox ak maam ndox boo ma posé question ci wàccaayu gàmm gi dinaa ci sawar trop ci tontu ci. parce que li ko waral mooy ñun waa Tivaouane dañoo war bu gàmm jub seetee ñu tëj suñu ay néeg bàyyi suñu ay activité baleel Sidaañ Malick dëkkam bi defaral ko ba mu baax taal lamp yi defar yëpp xam nga lu ko waral mooy li nu Sidaañ Malick lebal. parce que waxoon naa ci benn émission di bu Sidaañ Malick dëkkoon fongale mi ñun waa Tiwaan bu gàmm Tiwaan jotee dañi lem suñu bagage dajale suñu xaaliss pass dem fongale mi fekk ci mam modo parce que ñun yalla mo nato ñun waa Tiwaan yalla nu bind ngir si laaj Maalik liko waral moy li nu mam modo defal jóge Njaarnde dekk juddoo gaaya dem saint wi jóge fa dem Njaarnde dekk yëpp nek fi mu bàyyi leen fi ñëw choisir Tiwaan kon liñu suñu borom defal mënuñu ko fay Tiwaan nak dekk la bo xamanteni bu gam jub see xel yëpp ci Tiwaan la ñuy dem moo tax tabarkalla taalibe yi sax commencé nañ fi mu nekk nii commencé génn di nettoyer kër yi di nettoyer jumaa yi di nettoyer sëg yi di nettoyer fépp waaye dañuy ñaan rek ki nga xamante ni mooy le premier magistrat de la ville Mouhamadou Diagne Sy Mbengue nga xamante ni moom la yàlla def tey ci dëkku Seydi Hadji Malick bi muy kilifa gi te Serigne Abdoulaye Alamine moo waxoon ni dëkk bi ku fi takk ndomba tànk fekkoon na Seydi Hadji Malick lawraataale ko ba pare kon moom ndomba bi mu takk Mame Maodo ko ñu ngi koy ñaan mu dimbali ñu ci làmp yi parce que tey boo demee fee ci jumaa ju mag ja man koy nettoyé da ngay xam ni bësu gàmm gi fa la nekk àddina bépp fa la ñuy dal te benn làmp takku fa. boo duggee ci koñ yi lëndëm gëmu lëndëm da ngay xam ni damaa jàpp ne premier magistrat de la ville Mouhamadou Diagne Sy Mbengue da koo gisul waaye ñu ngi la koy fàttali rek Mouhamadou Diagne Sy Mbengue nga jàppale ñu ci Tivaouane leer nañ parce que nag bu boobaa yow lañ koy laaj. bi ci si it taalib yi nga xamante ne ay taalibi Seydi Hadji Malick nekk ci dëkk bi Sia damaa wax ne bu kenn ku ne balee sa biir néeg génne ko balee sa biir ët génne ko balee sa buntu kër ñu dajaloo kenn ku ne bu balee sa buntu kër Tivaouane set te Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz nag barki dem dafa wax ni mu ngi joxe rendez-vous dimanche prochain na ñëpp génn seen quartier yi kenn ku ne balee sa quartier su ko yàlla mayloo mu am jot kenn ku ci na jaar sa quartier xool ba xam na nanu ngay defee léegi nag damay wax ni toppandoo lu baax dafa baax. taalibi tiijaan yi ñu ngi commencé yeewu ci xam ni dëkk bii di Tivaouane ñun taalibi yi ñoo ko mën a defar xaaratuñ ci ma Masamba xaaratuñ ci Mademba xaaratuñ ci sax ndigal nag parce que li ñu Sidaaj Malick lebal ba mu ñu koy lebal tàgguwul ma sàmba tàgguwul ma Demba daf ñu koo defar rek te yàlla tax kon bu buñ ko waree fay ñoo tàggu kenn ñu ngi woo ñëpp ACA di sant nag bu baax a baax a baax TIV info xamul ko waral mooy ci biir aw turam Tivaouane def cee kon dénominateur commun la ñun ñëpp ko bokk lépp tur woo xamante ni Tivaouane dugg na ci gumba bi maçon bi tailleur bi mécanicien bi dawal ko saret bi kii dajale mbalit mi ci biir TIV info la bokk parce que turu Tivaouane la jël dugal ko ci biir kon ñi ngi wax ni képp koo xamante ni rek yaa ngi dégg sama appel di dégg appelu communicateur traditionnel yi mooy Tivaouane a woote jug leen wuy si ko la wayta waykat bi wax ku ñëw ñu ñëw ku ñëwul ñu wax si daaj maa fi ne amul lenn lu mën a dem san organisation ni dina am alal am lépp bu amul organisation mënul jàll mu am ay lu ci am solo lo xamné ne sëriñ bi daf ko wax ñu dajaloo pour génn balé dëkk bi téru gan yi yaakaar naa ni waru woon ñoo sax xaar sëriñ bi di wax loolu ndax dëkk dëkkuwaay tubaab dafay wax ni un corps saint dans un esprit saint wala un esprit saint dans un corps saint bu situation demee ba toll foofu ñu war a génn ñun ñëpp kenn ku ci nekk kum ci mën a doon nga génn ñu taxaw bale dëkk bi set setal ko ba ñëpp mën a xam ne même bu dul gan yi sax bu ñu ñëwee ñun bu ñu fi bàyyiwaatee ñu nekk ak suñu Tiwaawan mu set te jamono toll na foo xam ni bay sawewu tànk kenn du la kenn du bàyyi yëfam ñëw sayf ñëw sayf di la ko defaral donc ñu ñuy lancé ñuy lancé appel encore une fois di wax ni que di woo Tiwaawan gépp ñu génn boo leen xoolee bu baax gis ngeen waa Kuli commencé nañ ko tey ñu ngi nii commencé di di di dindi suuf si nga xam te ne moo nekk ci trottoir bi mu doon initiative bu rafet. ñu commencé ko tey war ko continuer tant que parewul duñ ko bàyyi donc ñuy woon ñëpp ndax Seydi Hadj Malick euh, daf ñu daf ñu teg ci ay conditions yoo xam ni boo ci jaaree yegg foofu nga jëm sell moom mënoo ko def te fi nga nekk setul mu doon koo xam ni fekk na fi jikko yu bari changé ko bi muy ñëwee Tiwaawan dafi fekk ceddo fekk fi géwal indi fi ak cëriñ bim mu fi ñëwee ñi yon téddo yi fexna ba def leen ay julit jël géwal au lieu mu mu fokk ndandi fokk ko daf ko foré nenen ba kenn ku nekk tay ji gi ci sa bop ba tay kër go dem fekk fa hafizul qur'an da ngay dem ci fami géwal ñi daan ñi daan ñi daan ñi daan ñi daan ñi daan ñi daan yalwaan tay dafa sab seen potu salaire seen seen potu yalwaan def ko salaire koko rek jarna dekk bu mu tëdd ñu fexé def de sorte que mu don lu rafet Donne le taru set la jeunesse nous mën a dëkk bi mënul am réussite mënul am avancement jeunesse du taxaw c'est la jeunesse qui doit être au devant de la scène Nous, gis ngeen talibi talibis, leen ci am na ça fait au moins un mois ça fait 25 jours on peine à les enlever c'est la voie principale artère principale de ñuy ñaan autorité municipale yi ñu jóg ci dox ci ba lii jóge fi parce que am na loo xamante ne rafetul ci gis-gis am na loo xam ne rafetul ci dëkk donc ñuy ñaan rek képp ku mën a doon nga jóg ak volonté ak abnégation ñu doxal dëkk bi maanaam jóg raxas bale ba mu set wecc ñu taal lamp yi ndax dëkk bi ni mu mel lëndëm na ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax ndax gan yi ñëw ci lan lay wege ci lan respecté wasalaam waaw jërëjëf Asia jërëjëf asalaamaaleykum waa TIV info ak ak mbokki internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers TIV info wàccaayu gàmmu buñ ko waxee gudd juddu yonent bi la sallallahu alayhi wa te damay dégg Baye Ibou Sakho da wax naan bis ba leer ga jóge ci ndiggu maam Abdallahi di dem ci biiru maam Amina nee na keroog ñëpp dégg nañ benn malaaka buy wax tannabahoo an na nural xat mi lay la kumu nee na boo koy firi mi ngi mel ni bu une heure du matin jotoon ñu naan yeewu leen te bu nit bu la yeewee une heure du matin yow tu te poses la question lan la may yeewee mu ni jug leen ngeen sangu ngeen waaj ngeen balewaat kër yi ngeen lalaat lal yi ñu ni ko loolu lépp pour lan mu ni ngir waajal ki nga xam ni bu amee li nit di am ci biiru ndeyam bu juddoo mooy nekk sangu àdduna ak àllaaxira kon appel bi mooy ba yonent bi waree ñëw dañu ñu jug leen waaj defaraat kër yi juglen na ngeen geut moy na ngeen parfum wat juglen na ngeen soppi yere binga na ngeen genn darab yi nga xam mom ngeen gëna rafet la ngeen lal ko loolu buñ koy wax jamono joj ba tay sayyidul haji malik bëggal ñu yiw ñew fi ni ñu kay dañuy magal guddi judd sayyiduna Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. kon ñun li ñu war mom moy defaraat dekk bi parce que awan nak on se dise la vérité dafa lendem dañuy bayyi ba gamu jot a trois jours avant gamu ñu ñew ni no tay mu leer par nañ mënul nek il faut que dès maintenant ñu def li nga xam ni mooy devoir ku ci nekk li la war nga def ko Senelec li ko war na ko def waa ndox mi muy SDE li leen war nañ ko def waa eaux et forêts li leen war nañ ko def municipalité bi li ko war nañ ko def sénégalais yi ak rawatina la population de Tivaouane kenn ku ne li la war nañ ko def ndax xalifa bi dafa joxe ndigal sëriñ Babacar si Abdoul Aziz démb gis nga bi ñu liggéeyee armeer yi ba pare tey ñi ngi xëy ca jumaa ju mag ja ba lépp pare na waaye dañi le 27 dimanche képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ak képp koo xamante si nii njaboot nga dëkk Tiwaawan nee na bu kenn ñëw fenn di fa daje chef de quartier bi na ànd ak xale bi gën a influent ca koñ ba ak président ASC bi ak les supporters ñu defar seen koñ ba mu set wecc ndax an nadaafatu minal iman yonent bi moo ko wax ci gëm yàlla la bokk te gan gi war a ñëw nag ci sa kër war na bu ñëwee nag fekk fi set gu toll ni lépp lu mu bëgg def def ko ak tey ba kanam kon ñi ngi wax mbokki Tivaouane ñi ngi wax la population de Tivaouane surtout la jeunesse de Tivaouane mbokk yi pas-pas bi woyof na nañ ko dëgëraatal nañ ko nañ bu kenn xaar ku la woo téléphone. na ku nekk jël ko muy sa yëfu bopp ndax maam Abdou Aziz pour ma daaneel moo waxoon ni waxuma la ñaqal yonent bi ci bisam waaye cin lu ñu togg ci bisu gàmm ñu togg ci añ. nee na cin loolu ba keroog yowmal xiyaam luñ ci toggati ku ko lekk sa yaram mën naa aram sawara kon nag mbokk yi ku am xéewal gu toll noonu da cee war a profité Pape Moussa Diop maa ngi nuyu waa TIV info jërë